tukaay moins matériel bu ndawa ndaw boo xam ne war nga ko yóbbaale mooy bu njëkk bi mooy nga déglu météo balaa ngay génn di dem géej nga déglu météo xool ndax def na alerte pour wax géej gu aay wala géej gu aayul beneen bi si topp mooy booy dem géej ne gilet yi nga yor nekk na gilet yu doy ba des sax ci biir gaal gi fexeel aussi ba nga xam ne moteur bi balaa ngay dem na nga ko testé xool ndax mu ngi dox correctement wala doxul correctement war na aussi yor zaman bu mag boo xam ne bu ngeen ci aaye nga mun euh, ba nga xam ne war a nga mun a demal war nga aussi ñi nga xam ne koy utiliser pour di askan ci fàttali ñeenti di nguur dañu mooy depuis samedi bu mu jël ba tax na recherche di continuer kenn ci ñoom nag moom jamono ji moom nga bu Grand Mbour ñu fay faj ba tax nga xamante ne ñoo yor wàllu napp yi ay xel mesure sécuritaire yi ndax jamono ji ñun ñëpp xam ni géej gi dafa sàmbara Aliou Mbara Sonko moo doon jokkoo depuis nga xam ne nappkat yi war nañ caa bàyyi xel bokk na ci nag alerte xam ne waa ANACIM dañu koy faral di def daal dina ci sax génne benn nit ki tey di wax ci ngelaw loo xam dina am ci ji war kon altine weesoo loolu itamit géej dina yëngu diggante altine kon na jàpp talaata bu euh, midi euh, jotee. ñu daal di wéyal euh, waa ci lu soxal kon géej gi ak aaye gi nga xamante ni waa wala kon waa Sénégal nag daal di nañu ko rek aaye ngir lu jëm ci wàllub jën buy bawoo Mauritanie du dugg ci Sénégal. Euh, te euh, ministre bi ñu dénk wàllu napp gi daal di koy rek euh, santaane loolee daal dina jur coow ba tax na association bu ëmb mareyeur yu Sénégal daal dina ñaawlu dogal bu ni mel assemblée générale la ñu amaloon seen njiit daal na sàkku ci jëwriñ ji di Alioune Ndoye mu daal di soppi taxawaayam jëm ci biir dogal sàkku nañu itamit ci njiitu réew mi Macky Sall mu daal di ciy addu ci am mbéng moo ñu waxee ñu teewlu kooku yu sabal bi ñun fi ne li ñuy dund vraiment métti ñu ñaan le président Macky Sall bi nga xam ne bés bi rek moo ko soxal ñu ngi koy ñaan aussi mu a xëcc a parce que ñun baaxoowuñu lakk baaxoowuñu taal baaxoowuñu geraw man maa ngi defaat laa si appel en tant que président association nationale des mareyeurs que buñu nee jën bi jógee bitim réew dañ koy baare nañ bàyyi xel ni Mauritanie de pêche yi nga xam la waa gën ndar di nappe ñoom ñoo lu may kon licence yooyu bu ñu nañ bàyyi xel itam ñoom tam war nañ leen a bàyyi ñu si fi jën. mu nekkoon kàddu ya Thierno Mbengue di ki jiite association bu mareyeur yu Sénégal. ñu wax ci tolluwaayu mbasu Covid 19 ñett ci doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ci point du jour tey bi juróom-benn fukk ak ñent ci ay doomu aadama daal di ci ame ay yees bi lépp jàngoro jiital prévention bu ministère de la santé action sociale moom moo def taxaw seetlu bi euh, niki euh, tey ba fi mu toll ni kon am nañ juróom-ñaar téeméer ak euh, ñaar fukk ak ñeent ci doomu aadama yoo xamante ne ñoom ñooy wéyal seen fàcc ci bërëb yi nga xamante ne ni ay bërëb bu fajukaay la jëm ci jàngoro ji ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ leen di na kër yi kon na muy lim goo xamante ne ni bu ñu ko euh, rek euh, defee buñ ci defee ab jàngat day wane ni kon jàngoro ci eh, mi ngi dellu gannaaw ndànk-ndànk waaye loolee teel nañu wax ne campagne ñu ko ñàq gi moo ko rek daal di indi bu ñu bàyyee xel kaddu ya professeur Bamba Kane moom mu yëngu ci wàllu physiologie ca faculté bu médecine ak pharmacie bu université xam ta Diop bu Ndakaaru nee na faaw gën gaa néew juróom-benn jàpp ah, juróom weer jàpp at ngir ñu mën a xam njeexital li nga xamante ne ni eh, campagne vaccination bi daal dina ko rek indi ci wàllub mbas moom professeur Bamba Kane ñu teewlu kook Younoussa Baldé euh, waaw loolu nag euh, am na ñoo xam ne xëy na mën nañu xalaat ne vaccination bi la mais man dama jàpp ne vaccination bi teel na pour ñu mën a indi tendance bi nga ñu gis parce que non seulement ñu ngi commencé vacciné yàgg ñi ñu vacciné gum ñu ngi toll pratiquement ci deux cent mille et donc man mënuma jëm ni pour le moment nii dafa gën a effet pour vraiment effet wàññeeku bu baax a baax a baax ci nombre de cas yi borom xam-xam yu bëree bëri ñu naan faaw ñu dawal lu mat juróom benn weer mm. jàpp ak mais aussi loolu dafa dépendre ñaata nit lañu ñu vacciné li gënoon mooy tey jii nii ñu vacciné au moins soixante à soixante dix pour cent de la population pour que ñu mën a am immunité collective boobu nga xam te moom lañu moom la ñuy mu nag kàddu yi professeur Bamba Kane ñu daal di wëyal kon ca diwaanu Saint-Louis fii di xaar yàlla kër Cheikh di gox boo xamante ne Ah, mu nga nekk kon ca wetu aéroport bu yees ba ñu fa rek nam taxawal fi mu toll nii nag ak ña fa dëkkoon ci atum 1963 ba nag ni Descos dafa sàkku ci ñoom ñu daal di fay rek jóge muy dogal goo xamante ne askan woowee rafet lu wuñu ko ndax nee nañu anam ya ñu leen fay jëlee wàccoowul ak yoon ba tax na sàkku nañ ci jiitu réew mi Macky Sall mu àddu ci seen nekkin ca diwaanu Saint-Louis la ñuy fekki sunu ndaw Babacar askan wi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bii di xaar yàlla fi ci ndar ñoom nag génn nañ ci tali wone seen mer gannaaw ba yëgale ni nag dañu war a jógee ci bërëb boobu nga xam ni dafa jege l'aéroport bu bees bi ñu war a tabax boor boobu Buuba Njaay moo yore seen kàddu dañu waxoon ay wax yu leer nañu ñu ne président Macky Sall moo leen yónni képp koo xamante ni dañ la impacté dañ la jël en ay conditions yoo xamante ni même boo doon jaay gerte caaf yow mi da nga yëg sa bopp si mbir mi bu ñu ko na ñu dellu seen ay ordinateur ñoom askan woowu nga xam ni nag jamono ji yi jaaxle nañu loolu fësal ni nag autorité administrative yi dañ leen waxoon ni dañ leen jox ay ndàmpaay bu ñu leen yëkkatee ci bëri nag ci protocole bi respecté wuñ ko. coowal aéroport bi nag dañu ko war a a dakkal nañu ñoom seen li ñu te mettre à l'aise population bi Mansour Faye ñu ngi lay appel nañu dem wax mbir mi bu dul loolu daañu wàcc si kaw li bi. mu toll nii askan wi nga xam ne ñoo dëkk ca gox googu mer nañu ba fëttu ñoom sax jamono ji ñu génn foofu. dañoo privé exilé ndax lan pour coowal aéroport bi. fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. jërëjëf Babacar Niang ca Malem Hodar nekk ca diwaanu Kaffrine foofee na mën nañoo wax ne gox ba amul benn jumtuwaay muy taxaw seetlu boo xamante ne ña bokk ca Koungheul daal dinañ ko def ñàkkum ndox yoon yu baaxul ba ci ñàkku bërëb fajikaay bu mucc ayib doon na lu leen sonal janoo lañ amaloon ak taskatu xibaar yi di ñaawlu anam gën ñu dundee Alioune Kane ci lu mu gën a yaatu kon na mel ni élément boobu yembul bu fekkente ne Aliou Kane yemb nañu teewlu ko. lii di wér gi yaram ak it enclavement ñaari jafe la yi askan yi yeewoo ci Malem Hodar di jànkonteel. ci kaddu Dame Seck bu LD Debout yore kaddu l'opposition bi ci gox bi. boo demee ci mbiru santé et eh, problème yi fi nekk du jeex tey képp kuñ ne dañuy jàllale sa jabar fenn am nga problème parce que ordonnance seer na personnel bu doy bu xamante mu ngi fii ah, ci ci ci ci ci de santé bi amul parce que département Malem Hodar dafa yaatu dafa sori te population bi dañoo bëri renra yi nga xamante président Macky Sall def na mais dispensaire yu nga xamante bi mu amee neuf mois ci commencé mooy dagg neuf mois ba douze fi ne am na suñu xamante ne suñu mayoon mu deer mu nekkaat yoonu ragal nañ ne xaalis bu dul ci nguur gi def lii di ndox ak cet yeneen ñaari jafe-jafe la ci depuis daaw ba léegi benn ndox yéegu ci dañ ko raccordé di ko def en direct bu pression bi ngande moo tax fii di bëri am na koñ yu xam ne ci Malem Hodar bu bu bu six heures jotee dootuñu naan presque ba suba teel euh. gis tamit assainissement moom zéro ci commune Malem Hodar alors que mën nañu wax ci fi manqué koñ yu bëri mu lëndëm ñoom nañ wax ci loolu lañ leen di ñi bootu ci ku jég politique gi nekk ci Malem Hodar nee nañu ñu ngi gën a am doole ndaxte askan wi daa weddi jiitu réew mi ci kaw li askan wi gisut benn changement ci seen dundin di président Macky Sall falo ci bopp réew mi ba ni gini Aliou Kan Kaolack Zik FM jërëjëf Falioune Kane nañu wax ci leneen ci xibaar di matuwaay yu ñu jël ngir naka dooleel ndaw ñi ngir ñu mën a gën a mën a aar ak soxna yi ak it ñi di xale yu jigéen ñi loole moom mooy liggéeyu Wildaf Sénégal ba tax na nag mu daal di eh, taxawal ndaje moo xamante ne da ciy jox ndaw ñi lenn ci xam-xam ngir ñu mën a jëfee lu ni mel ba ñuy wàccoo saa su nekk ak àq ak yelleefu ñi nga xamante ne ñoo di soxna yi waaye itamit lii di violence basée sur le genre mën fee rek jugee Mariama Traoré moom la ñu dénk lépp luy programme ca Wildaf Alassane Balde moo taataan ay kaddo mooy Macky ëllëg ñu euh, war a préparer nag ci loolu def en deux mille dix huit ñu daal mettre place benn euh, dajale jeune bi dans le cadre yu ci kuréel boo xamante ni collège des jeunes lañ ko tuddee pour vraiment préparer naa atelier bi nag dañu ko def ngir kat euh, ci tematique yi nga xamante ni bi ñoo am solo yi nga xamante ni bi wil daf ci lay liggéey ngir jigéen jëm ci kanam loolu daf ci am solo wàllu ak ak yelleef genre développement maanaam ci métit ñi nga xamante ni bi ñu ngi koy métital jigéen nekkoon kaddu ya Mariama Traoré Gallo lépp luy programme ca Wildaf Sénégal xibaaru biti réew yi dañu koy door yàgg ki fi nekkoon njiitu réew bu Madagascar di Didier Ratsiraka moom daal dina dëddu àdduna ci dimanche ku tey gi ci bi muy toll ci juróom-ñett fukki at ak ñeent moom nekkoon na njiitu réew bu Madagascar ñaari yoon bi ci njëkk atum 1975 jàpp 1993 laata muy ñëwaat ci bopp nguur gi atuma 1997 jàpp 2002 moom nag officier de marine la woon mu doon ko rek duppe l'amiral rouge ndax politique socialiste bi mu taxawaloon na moom nag dañ ko hospitalisé woon ci ndorteelu ay bés bi ndax contrôle de routine bu mu doon def ci wàllu euh, wér gu yaramam ca Indonésie gën ngaa ndeew fukk ak ñeent ci doomu aadama ñoo amee ab ay gaañu gaañu ci cong boo xamante ne dañu ko jëmee woon ci cathédrale euh, bu Makassar ginnaaw messe des Rameaux buñ fa doon na amal loolee di euh, xew-xew goo xamante ne ni dafay rek marqué tàmbalik semaine sainte jëm ci sunu mbokku catholique yi ñaar ci doomu aadama ñu njortu ne ñoom ñoo kon amal bi la cong jëmee ko ca cathédrale bu Makassar nekk ca Indonésie mbokk yi saxoo di safoo Zik FM la rajo leader looloo gënoon a fës ci xibaaru biti réew yi te moo sax daal di ndar jota jotaayu xibaar yi jaajëfal bu baax euh, Chérif Diallo mi nekkoon ci xarala gi Abdoul Aziz da baax ci réalisation bi di leen jaajëfal yéen mbokk auditeurs yi doon teewlu bàyyi leen ngeen yokk programme Zik FM rajo leader da ngeen di àndaat ak Safia kon ci bon dimanche jàngeen jëf